kon encore bi am na ci loo xam ne du si def wu ñaaw mu jëmaay fay tax na opposition bi am ay jafe-jafe mhm. waaye am na ci loo xam ne nag responsabilité opposition parce que dañoo dañoo a jóg te yéex gaa jóg tax na un préparé wuñu élection yi mhm. organiser wuñu amuñu mooy amuñu discours euh, képp koo xam ne ñeme nga nit ku la def lu mel noonu nga jël bulletin xool turam ne ci photom nekk ak turam nga dugal ko ci urne loolu askanu alku rek moo koy def hmm? kese. egg na foofu mais bien sûr. moo tax personnel mënu ma leen a féliciter. saaga la xas la wala boo décompté la di kàddu yoo xamante ni yu ñaaw la yoo xamante ni Moustapha Diakhaté génne na ko ci gémmiñam daal di koy bàcc fi nga xamante ni moo di si diggu mbécc mi. kàddu yooyu nag mën nañ ne ni moo ci réseaux sociaux yi rawat na sax bépp débat public public boo dem bu ne kàddu yi Moustapha Diakhaté yooyu dana fa daal di jub kàddu yi mu yëkkati nag mën nañ ne moo ko yóbbee tey ji ñu daal ko yóbbu fi nga xamante ni moo di dindi ko ki nga xamante ni moo di Awa Diop Diagne nañ ne ñun ñi nga xamante ni ñooy animé débat yi nga xamante si télévision yi la mën nañ koo bañ a promouvoir parce que nag da koy yëbb xamante ni mën nañ ne sa amaana niveau am yeggut fa loolu nag mën nañ ne ñu bëri d'accord nañ si lu ñu mel waaye ki nga xamante ni moo di Mame Birame Wathie tamit yéey na si yàbbi si par rapport ak li nga xamante ni mooy li xew waaye tamit moom li nga xamante moo di si xalaatam kon laataa ki nga xamante ni moo di Mame Birame Wathie lan la wax si ki nga xamante ni moo di Moustapha Diakhaté ak li nga xamante ni yéey na ko yàbbi si mbir mu nu mel waaw man de d'accord naa gis-gis a Awa jàpp naa ne Moustapha Diakhaté moom buñ ci waroon a waxtaan tey dañoo waroon ne mu ngi chambre tel ñu ngi xool ndax chambre boobu baax na baaxul loolu moom jàpp naa ne mu nañ koo débat ci moom ci jàppam bi nag man da li mu waxoon rek ba ñu jàppee Ousmane Sonko laay wax dañ koo yàq a jàpp lam ci tegoon nag képp képp képp képp képp dañ dañ damm caabi te tëj ba damm caabi. ah donc kon wax ni euh, c'est pas valable pour tout le am na ñuy toog yéene seen morom ay kaso. Moustapha Diakhaté bi ñu jàppee Sonko dañ ko yeex a jàpp. mais Moustapha Diakhaté wax bi gënoon ñaaw bu mu waxoon moo di ne diirub 50 ans bu fi jigéen juróoti ku mel ni Ousmane Sonko. loolu ak li aan wax naan ku àndul ak Ousmane Sonko ndey sa ndey liggéeyul loolu ak loolu ban moo gën a garaaw. waaw xam nga wax ju yem nii wax ju rëyee nii nit di ko gémmee si gémmiñam ba noppi te dara fekkul la si. mu melni kon lolou day nuru ko ne manam lolou ñu daan wax naan làq dom dor dom dafa xewon ci nguur gi nga xamanteni ni moo di président Macky Sall ndax na Moustapha Diakh yaa na kàddu yi yëm ni naka la koy waxe ci pinc ba nopi ñu ne tek karal kenn waxul ko dara kenn deful ko dara manam fi 50 ans ci kanam kenn waru fe jur dom ñu melni ki nga xamanteni moo di Ousmane Sonko mom lan la ko Ousmane Sonko def wala ñaan ko Ousmane Sonko lan lañ ko def ba sa yu nekk mën nañ ni di wone ben contenté mam ci ki nga xamanteni modi Ousmane Sonko ak ñi mu andal quoi kay bu zawa da waxul daf ko daf ko faté suñu ñun ñi ni sa wawal fa attaqué ñu fi lu na mu yak ñu ko fi dem sama page Facebook fa tontu tax ay ñaaw waxon ci wal ko tout ça mu sa hmm. waxon euh, euh, euh, il est pas oui bu nekkee ne dañoo topp ñenn ñi di naan euh, bëgg koo def cadre politique di ay détenu politique la Moussa Wade ba mu génnee ci Macky ba léegi amul ci fenn fu mu engagé wu. demoon na bay bëgg a bokk ci élection deux mille vingt deux ne waa xat xol aar aar Sénégal mujj ko koo bàyyi comprendre donc. waaw Birame Wathie waaw Birame Wathie neex quoi. présenté wu ma ci. Mhm. waaw kon kenn mënu koo considéré activiste sax lay gënoon rôle que ak ak que homme politique léegi nag li ci garaaw mooy bu nekkee ne dañu jàpp ne euh, liberté d'expression la amul problème nañ ko bàyyi mu wax lu ko neex mun na saaga yonent bi mun na saaga suñuy waajur mun na ne ñun ay dañoo alku mun na wax lu ko neex dara du ko ci fekk xam nga lan mooy xew. Mhm. bu yewé ci lool sax mu neex parce que ñi muy wax mais ñi muy wax di leen di saaga di leen di yàq lu ne ñoom dañoo am ay mbokk vraiment bu dajee bu doxee ba mbokk ñu xew dañuy régler compte tout simplement ci loolu xew comment dire justice moo war def liggéeyam leneen li nga xamante ni risque la te jàpp naa ne sax Moustapha Diakhaté moom mooy moom mooy inspiré tous ces petits chroniqueurs là nekk ci plateau yeeg studio yi di wax lu leen neex di saaga à tout bout de champ Moustapha Diakhaté bu ñu ko loo ñu considéré ne kii kilifa la demoon na ba nekk député. nekk mhm. président groupe parlementaire. donc lu muy wax te kenn euh, waxu ko dara ça veut dire que nag lu ñu toléré la ci penc mi bu boobaa nag ku nekk day ubbi sa rajo lu la neex nga wax ba may doog a yi Ousmane di doog a wax waxu euh, pass yi mais man seetaan naa benn plateau mais ñuy interpréter euh, pass yooyu ba ciy tudd Adji Sarr ak bëggam pass

réew mi jamono juñ toll ni manam kaddu yu ñaaw yu bare bare yi nga xamante man nañ ni mi ngi jup ci li nga xamante modi ci penj mi lu ni mel moko waral quoi parce que nit day wax lu ne weng ñu war ko jappi mu ne liberté d'expression expression la wax ñi nga xamante ñoo ci ta euh, société civile bi juk wala ñom alintul juk fele ñew ne ki kat dañ maam dañ ko xagn ak ak yelefam quoi mais ak ak yelleef googu nga xamante moom lañ ko xeeñ est-ce que moom xooloon na li nga xamante moom la doon wax lan la mën a jur ci ay jafe-jafe waaye lan la mënoon a jural ñi nga xamante ni ñoom la ko doon waxal tamit quoi parce que ñoom it dañoo am ay mbokk am tamit li nga xamante ni moo di famille yoo xamante ni ci la ñu bokk. instauré ci du liberté d'expression am na ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni ñu ci réew mi di critiquer Ousmane Sonko du matin au kenn du wax ne jàppale du matin euh, chronique bu mu def day sànni geer xeer gars yi suba ba ngoon jot mais doo ko dégg kanam mu déplacé mhm. doo dëgg mu wax benn moo déplacé te kooku yaakaaruma ne tey <laughs> doon nañ ko jàpp ñu naan lu tax nga euh, ñu ñu naan waruñu ko euh, dañ ko waroon a jàpp mhm. au contraire parce que lu muy exprimer lu muy wax c'est une expression loolu mën nañ ko comprendre mais di toog suba ba ngoon jot di saaga nit ñi di yàq di leen yàq lu ne mhm. justice bi def comme si de rien n'était jàpp naa ne loolu mooy créer anarchie loolu mooy créer bu fekkee nag réew dem nañ ba tool si niveau boobu kon nga xam ne nag yaa am problème am na boo xamante ni bu réeré la bu kenn mënul régler bu fekkee ne nit ñi dañoo commencé énante wala ñu commencé bañante ñu commencé noonu wante façon noonu wante boo xamante ni mën nañ nañu musul am loolu nag kon war nañoo xoolaat maanaam lan moo ko war a waral quoi Moustapha Diakhaté haine bi nga xamante ni haine na ko Ousmane Sonko ak ñi nga xamante ñoom laa dal di waa Pastef haine boobu kenn xamul fan la jógee parce que lu bari nag lu ñu doon wax moom génnoon na fii ni wax ne Ousmane Sonko dafa yebaloon ay booy pour ñu bëggoon a dem taal fi nga xamante ni moo di këram parce que ku nekk xamal na ni ay jamono deux mille entre deux mille vingt trois ba deux mille vingt quatre bi li fi xew bari na lool ay kër yi nga xamante ne noonu ñu ko fee taal bari woon na lool mais toujours ñooñu lañ doon wax mooy que ne Ousmane Sonko mooy yebal ay nitam pour ñu dem attaquer kër yooyu noonu te xëy na ñoom amaana jamono jooju noonu ñu koy wax ñoom xëy na mënoon nañoo wax ba lay. waaye xëy na kañ ko doon waxal moom it mënutoon a lay parce que situation yi nga xamante ne ca la nekkoon ay ñi nga xamante ñoo di ay nawle ay mbokkam tamit doon ànd ak moom ci politique bi tamit amaana amuñoon foo xamante ni mënoon nañ koo layee moo tax mbir mi demee woon nu ni mel quoi mais kenn mënul indi firnde que ne ñi nga xamante ni ñoo defoon lii kat waa ñi waa Pastef yii la mais jàpp naa ne daal jamono ji réew mi li fi xew nii ak si pencum politique mi yaakaar naa ne war nañ koo changé waat bu baax a baax rawatina kàddu yi nga xamante ni nag parfois dañ ko bàcc di ko teg si loo xamante ni nag amul fenn foo xamante ni fa lay tegu lu dul mbañ nit ki rek lu dul en ko kese te yéen ñaar bokku leen li nga xamante ni moo di xalaat bokku leen li nga xamante ni moo di parti politique loolu nag a jeex li nga xamante moom la Moustapha Diakhaté wax wala Adama Gaye wax ko wala ki nga xamante ni moo di Cheikh caam mu ñu koy woowee ambassadeur mën nañ ne ñoom ñëpp li nga xamante ni wax nañ ko fi nga xamante ni moo si plateau yi jamono yi ki nga xamante ni moo di Macky Sall dix mille mooy de dix mille fois mën nañ jàpp naa ni koo ko waxoon ku ne mandat de dépôt nañ la bu yàgg fàttali la fi nga xamante ni moo di si prison ba kon jamono ji bu ñu demee ba toll fii nii lii nit di ko wax ngay am sa ñaari fan sax mën nañ ne ñëwuñ tegu loxo kooku nga xam ne kon justice bi jamono ji nag mën nañ ni mu ngi bàyyiwaat xel bu baax a baax si réew mi ni nga xamante ni moom lay doxee te justice bi nag mën nañ ni saa yu dëngee rek mën nañ ne fitna dana am si réew mi mais saa yu jubee rek yaakaar naa ne jàmm rek mooy am fi nga xamante ni moo di si réew mi